shukri li rabbin karimin kana shakara wartaji minu fi daraini abkara shukri li rabbin karimin kana shakara wartaji minu fi daraini abkara وجدت شكرا له ما خرجت به كوني سعيدا وشكارا وذكارا بسم الله الرحمن الرحيم ñoongi di tàmbalee suñu kàddu ci turu suñu borom subhaanahu wa taala di teew si waat ci sang bu tedd bi di indaale sunu ziar ci gën ngaa tedd ziar ak sunu nuyoo gën nga tedd di nuyoo di ànd ak mbooloo mi nga xam ni ñoo uh, féete yaraax di uh, te uh, indi sunu sunu sunu ziar ak ak liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci bis bi di sant bu wéer a sant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ku ànd ak mbooloom mi yëpp di santaat bu baax a baax a baax a baax a baax ci wax dëgg yàlla. tawféex yi nga xamante ni lott nañ ko di ko lott nañ sunu làmmañ lott na ko tudd ko te lépp loo xamante te lépp ci euh, tawféexu ku tedd ki la ak mbaaxam ak yërmandeem te yërmandeem googu ñuy wax de amul am kenn mënu koo li kenn mënu koo nattable ci ñun ñii ñëpp te it te di yërmandeel goo xamante nii lamb na ñun ñii ñëpp képp ku fi teew ku fi teewul lamb nañu te wax dëgg yàlla euh, suñu kàddu moom lott na ci biiral ko yéen bi da koo xamante ni wax dëgg yàlla eh, suñu kàddu lot na ci lool lool lool te moo tax sunu cant am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñu ngi teewaat nag ànd ak mbooloo mi nga xamante ni ñoo féete yaraax yëpp di di feddalawaat sunu jaayante di feddalawaat tamit sunu sunu cant eh, jëmale ko ci jëm ci tedd ji nga xamante ni jàpp gi mu ñu jàpp amul kenn ku ci ko nattalu ci sunu suñu ci eh, ci mbooloo mi te ñu ngi ñaan sunu borom jàpp googu gën a sax bu baax a baax a baax te li koy saxal tamit mooy teggin yi nga xamante ni moom lañu war a ànd ak jëm yi tamit nga gën ñu see dimbali ba teggin yooyu ñu mën koo matale suñ kéem kàttan te dëgg dëgg yaa ngi ci sax waaye uh, loo ci dolli tamit duñu day ndax teggin yooyu moo ñuy jariñ ñun ñëpp ñu kàddu yi wax dëgg yàlla xamuñu sax fu ñu tàmbalee waaye cant gi moom làmb nañu mbuur nañu mëdd nañu ba xamuñu sax fu ñu koy tàmbalee waaye lépp rek ci sa jëmm la lépp ci sa baax la lépp ci sa jàpp la ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi lay santaat bu wéré wéré wéré wéré wéré sant koo xamante ni ni ma ko waxee rek am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem euh, di sant tamit mbooloo mi nga xamante ni ñoo ànd liggéey bi di ko liggéey ne euh, ay tout tànk lañu waaye ñu ñu am dog lañu rek ñu am pastéef lañu te it xam nañu tamit li leen tax a jóg ne saa su nekk euh, liggéey bi bu ko tàmbalee li ci ëpp duma fa teew sax. ne ci suba ba léegi maa ngi fi waaye nañ ko war a doxalee ak nañ ca war a taxawee lépp dinañ ko def te na mu gën a rafetee lañ koy defee ànd ak jàpp pas-pas bu wér bu wér a wér a wér wax dëgg yàlla ñu la koy seedeel ne wax dëgg ñu am taxawaay lañu ñu am yitte lañu nag ñu am pastif lañu tamit ñu am jàpp lañu ci jëm ji waa ñu leen koy seedeel bu baax a baax a baax a baax ne liggéey yi ngay liggéey li ngay woote liggéey yi ngay liggéey yëpp kenn du leen ci jiitu te kenn du leen ci man wax dëgg yàlla loolu tamit ñu la koy seedeel baax ne wax dëgg yàlla ñu am ñuy jàmbaar lañu waaw nga gën ñoo ngeen gën a ñaanal bu baax a baax a baax a baax ba seetaan du am ci yoon ci ñoom yoon mukk mukk mukk mukk mukk waaw tamit laxasaay gi tamit ñu koy yeesalaat ci bis bii di koy feddaliwaat tamit jaayante gi ak ak ak ak jàpp gi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ne lépp sa ndimbal la du ñun ay jëmm yu doy di la ñu matali lañ waaye li ñu matali ñu doy di lépp yaa ngi ñu téye téye ni kenn nattable ko ci ñun ñi waaw te téye googu na sax dakk dakk dakk dakk dakk dakk dakk dakk waaw sant nañ bu baax ñun xamuñu fu ñu tàmbalee sax waaw bu ñu waaye wax waaye wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax sant nañ sant nañ bu baax a baax maa ngi leen di delloo am ak akub siyaare di dellu di leen baalu xàq te di leen baalu xàq te ñaan suñu borom boo leen jéggal di jaarale nuyoo bi ak delloo gi siyaare bi ci Alaaji Góora ni mu ko waxee jëf ji daa yóbbaale lépp moom jëf daanaka su rafetee moom wax mën na caa bañ a topp te jëf ji rafet na matale na di ñaan sa borom mi nga xam ne dara tëwu ko rek mu yokk nu kàttan yokk nu tawfiq yokk nu ak jàppandal yokk nu it kaaraange te bokk nu musal nu ci mépp ndok ak pakk ak musiba ak balaa di rafet lu doxin wi lool tàmbalee ko ci àllaaji mi ndax jëf yi kenn da leen cee mënut te bañ tàmbali liggéey ba fii ñu toog di ko waxtaane te te lii mu waxit ne li muy jëfaat ci daara ji lañu kenn mën leen ci rawatina ci wàllu bàyyi maalo li ñuy tuddee bàyyi maalo xayaat yi daanaka boo ci génne waa yaraax kenn du ci des te liggéeyu daara ji li ci ëpp doole seeni doxin la seen positif la seen yitte la kon nag leen ci sant te leen ci gërëm fu ñu ci woote rek daanaka xar kanam yii rek laay gis li ci ëpp doole ci ñoom ñoom ñu ñu àndal ba ci sëñ baaramee nga xamante ni barki démb am na ko may wax nga xam ne josaan li daa yàgg lool ji muy bari na ci lool su ma koy fàttaliku ca daara ju mag jo université booba sañ ci kër sax defaguma ko <laughs> te lu ci doon du ko fàtte fi ndax léeg-léeg bi day des ci xel mi da ngay xalaat nit ki nin ko nanga ko doon gisee boobaak yooyu yëpp mm, te boobaak tey laxasaay gi gën a dëgër te gën a rafet amee jikko yi rafet yoo xamante ni lañ yoo xamante ni dara raxut leen te loolu jafe ci doomu mooy doomu aadama dara rëxul koo xam ne ni mu mel rek ni la mel waaw kon nag loolu noo ngi ciy sant Allah ji di ko sant ak ñu koy jaarale ci mbooloo mi góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp noo ngi leen di sant di ñaan nii ngeen ànd rek àndin wi gën a rafet gën a gën a boole seen bopp gën a suudewu gën a nekk benn waaw benn la seen xel boole la seen xalaat benn la seen i jëf di ñaan nag sama borom bi dara tawut mu mbokk leen musal ci mépp ndog musal leen ci pakk yi musal leen ci mosiba yi ah te dolli leen a yiir te dolli neen a taxaw te kenn ku ci nekk lam ngoor lépp yéene ko lépp it saa borom bi dara mu defal leen ci lu kawe seen jot ak cant gi daal ak cant ci ak cant ci lañ tàmbalee tey it ak cant ci la ñuy yem li ñuy sant suñu borom nag mooy fii yaakaar du fi tase jëf du fi neene loolu moom moom lañ koy sante noonu ndax kum ci doon bu ñu gisee sa laxasaay dëgër ngay ñaq danañ xam ne laxasaay gi neenut ñaq wi neenut ndax kii fay di yàlla sunu borom subhanahu wa taala nga jëf lépp dana ko teggaat ba teg ko ci sa loxo teginu rafet ndax da nga koo jaarale ci bunt bu ko mat kon nag noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa minu fi daarayni abkara سكارا وارتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما خرجت به كوني سعيدا وشكارا وذكارا